toujours dans votre acte du jour de ce 29 août suñ jógee fofu dañuy dem ci li nga dal montée alarmante bu ñu ko ci walu insécurité fi ci Sénégal ginnaw Thiès Aziz Dabala Fiti ci qui ki di Mama fii ci Grand Yoff kii di Amidou Diallo di taximan bi fele ci kër Mbay Fall fatou, bi melni ni tulleeg ma li ñu jàpp nit ñi di comme nu ñuy reyee ay weñ en tout cas li nga xamante dal moy ada mi ngi tourner la sonnette d'alarme ba nopi dal di exiger ay mesures d'urgence jëmale ko daal ci pour ko ñu régné li nga xamante dal moy sécurité ci dëkk bi suñu sukkandikoo ci action bi nga xamante dañ ko tuddé ada pour les droits humains de l'amitié ñom ñoo dal di exprimer li nga xamante dal moy sen profonde titange jëmale ko dal ci escalade bi nga xamante jamono ji insécurité bi mi ngi frappé bu baax baax fi di Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni daal ci kuuru ñaari dernière semaine bi lii di réew mi daal gis nañu daal mu nekk benn théâtre boo xamante ni ay série de meurtre la doon maanaam ay nit yu ñuy faat mu semé terreur semé lii nga xamante ni mooy panique ci population bi ginnaaw bi ñu relever lépp luy climat boo xamante ni bu violence la boo xamante ni dafa mel ni dafa jëm di aggravé wu parmi crimes yi nga xamanteni récent muy tragique figure yi nga xamanteni moy meurtre di Amadou Diallo ñu ko en plein acte de bravoure ko ci li protéger agressé Grand Yoff ñu fekk ni ñi di koy muy Ndong Bargny di doomu ci professeur Famara nok ñu fekk ko dal ci ben mar muy double meurtre bi di Aziz Dabala ak ki nga xamante moy mooy colocataire di Wali jaar leen ko dal ci sen propre cœur ginnaw bu mu choquer nation bi ñu daal di souligner dal li nga xamante ben gravité la jëm ci ben situation li di Sénégal bu ñëk dañ ko doon pa gis ci xar kanam bo xamante ay brave nit yoo lañ yoo xamante ci jamm la ñuy dund tey dafa melni Sénégal boobu dafa jël ben spirale de violence jakarol ben situation bu alarmante ada daal mi ngi fàttiwu que lepp lo xamante état bi amna na devoir dal di garantir sécurité jëmale ko dal ci ben vertu bo xamanteni moy article 7 de la constitution sénégalaise bu stipulé wu que bépp nit bo xamanteni am nga droit ci dund jëmale ko ci liberté ak sécurité ak intégrité jëmale ko dal ci ce ni bataille euh, ba tey fait mi ngi fàttiku ñii di autorité yi daal dañu agir immédiatement dans di déployer des stratégie bu efficace pour que ñu xeex lépp loo xamante ne indi violence bi nga xamante ne mi ngi jël gi dayo jëm ci organisation insister particulièrement jëmale ko daal ci ministère de l'Intérieur intérieur mu jël ay mesures yu adéquates ñu daal di restaurer li nga xamante ne sécurité ak confiance jëmale ko daal ci citoyens yi conformément ci article yi nga xamante ne ñoo nekk ci code pénal relatif ci atteinte à la vie ak intégrité physique ba qui ci perspective yooyu ADHA ngi bépp lumière ñu def ko jëmale ko daal ci crime yi nga xamante ni tey mën nañ jàpp ni daal coupable yi dañ leen war a juger ba noppi teg leen ay rigueur yu mag a mag muy ay sanctions ba noppi organisation yi daay insister également jëmale ko ci renforcer les plus effectifs de sécurité yi jëmale ko ci ensemble du territoire afin que ñu mën a prévenir ay futurs incidents Ada, ak solidarité am jëmale ko ci famille victime yi daal dina exprimer li nga xamante ni daal mooy ay njaalam daal di condamner fermement lii di acte de violence yu inacceptable jëmale ko daal ci ay organisation yoo xamante ni également dañ ko formuler ci ay recommandations yoo xamante ni tey intensification élection yi du dara dul enquête judiciaire ñu améliorer les moyens logistiques jox ko de sécurité mettre en place les plans de police de proximité jaarle ko ci promotion de valeurs citoyennes le même ni respect jëmale ko la discipline yi nga xamante ni éducation de base en fait que ada daal di révolution l'idée di contenu une ñuy diffuser ci réseaux sociaux yi jëmale ko médias. ci ay médias ba souligner importance bi nga xamante ni war qui ko instaurer ci benn espace boo xamante dara du ko daal lu dul dialogue mu soxla loo xamante ni tey dafa doon lu crucial jaarle ko ci contexte les liens publics la rassemblés. rassembler jëmale action droit humain pour l'amitié nous devons rester pour suivre l'évolution. nga ne évolution situation pour un Sénégal où la sécurité de chaque citoyen est une priorité absolue